régime mais nous tous, tuuti voilà merci merci beaucoup S'il vous plaît, on va démarrer notre La régie

yéen ñi yore organisation bi dañ leen di ñaan ngeen wax ak ñi nekk ci biti ak yi nekk ci biir ñu mel ñu tuuti rek ànd ak déglu ñu mën a démarrer suñu programme s'il vous Nous pour les organisateurs. Voilà, nous un petit côté président, nous mettons tout l'espace comme ça nous pouvons dessiner à nous venir. ñooñu notre caméraman yi soufflé soufflé bi ci nii bu ngeen di defoon tout le ba caméraman ba caméra yi mën a wàcc suñu wàccee ñi nekk ci gannaaw mën na gis ñu nekk ci biir studio bi soufflé waaw su ngeen mën a toog moom la jiite l' association des élus locaux du Sénégal ma daan bureau dem bureau bi daan waxtaan ñu ko baax di merci président de l'eau di itam ambassadeur de la paix c'est important souligné waaye su ma geesoo yéen ci sama xarit Serigne Mbacke Ndiaye ngeen may ko loxo merci Serigne jërëjëf kontaan nañ sa teewaay sa présence

président Abdoulaye Wade ma xam ko bu baax a baax parce que wax nañ ko lu bëri jërëjëf waay merci beaucoup. waaye itam mun maa ñàkk nuyu sama xarit bii mu Russie yéen ñëpp am ngeen yaakaar xëy na dama mënul ñëpp waaye yéen ñëpp am ngeen solo macha allah mu Russie

opération maam Abdoulaye mu ci mu Idriss nekk lan nga xalaat mu wax ko Moussi a été le directeur mu ñuul si yàlla liggéey ensemble. dalal askan wi moom nga ko def ñaar.